compétence transversale. Mm. alors euh, je sais que je sais d'avance que yow jàpp nga ne président Macky Sall amul droit représenté wu en deux mille vingt quatre conviction nga ko teg ce matin il y a un grand juriste français euh, qui a légitimé et, et, et validé euh, cette candidature en disant que le premier mandat de sept ans est hors de portée de la nouvelle loi Ah, xam nga man moom juriste français juriste allemand juriste américain xam nga ça nous rappelle les Carcassonne là. <laughs> a nee na bii du Carcassonne. waaw donc tey Macky Sall it ba mu juriste français <laughs> parce que li gën a am solo mooy askan wi ba pare gis nga njiit da nga koy dimbali. gis nga Abdou Diouf en 2000 am na ñu ko ñu demoon def ay seeni pexe sax ba dindi le verrou pour que bu gañee mu mën a nekk président à vie. nekk ba doyal bi élection yooyu jàllee am na ñu ne ko woon doo bàyyi nguur gi ci résultat yi. bi bi bi mu perte. bi mu perte am na ñoo xam bu leen déglu woon day labaj carte gi. mu gaaw woo Ablaye Wade avant midi. ok à boobu gaa yaa ngi wër ko ne ko bul def loolu Abdoulaye wadd mii bi élection yi résultat yi génnee loo dégg amul ñu bokk ci moom ñu ne gagné nañ plus de 50 pour cent. Serigne Mbacké la notre ami. <laughs> man tudduma kenn 56 <laughs> pour cent. voilà donc donc li ma bëgg a wax foofu rek mooy. ñooñu tey jii ñeneen ci beneen façon ñoo wër président Macky Sall naan ko dañuy dinañ def meeting d'investiture naan ko ay deuxième quinquennat te man Macky Sall moo ko wax nga dégg ko ma dégg ko mu ne maa ngi solliciter dernier mandat sénégalais a partir de deux mais on ne peut pas être plus réaliste Macky Sall moo ko bind ci livre Macky Sall moo bind lu constitution bi nga xamante ni esprit bi moo doon que moom 2024 lay yem moo tax man dugguma ci ay juridisme de la euh, pour ñu préserver la parole donnée le sens de la parole donnée yow xam nga man xam naa Macky Sall xam na ne li mu waxoon Sénégalais yi mooy 2024 la. mais xam nga Ablaye Wade dañ ko rétorqué woon dañ ko rétorqué woon en 2012 ne ko la parole présidentielle n'a aucune valeur euh, constitutionnelle. kon moo ko waxoon. si à l'époque man man de seetaan man de seetaan naa à l'époque yow sa émission yow xawma Louise Bidza am na ko doon ci interviewé Canal Info ñoom Cheikh Yérim ak ñoom Ismaïla Madior Fall Ismaïla xam nga lu mu wax la parole présidentielle fait foi de droit positif comme tey la ci man sama il dit j'étais dubitatif mais la parole présidentielle fait foi de droit positif jeex na Macky Sall 2024 na organiser élection yoo xamante nii moom du ci bokk suñu bëggoon a dimbali fi mu ne xam nga lu muy def dafay wax ne du bokk moom jël élection yi génne ko jële ko ci Antoine Diome ñu wut benn personnalité neutre indépendante maa ngi xalaat ku mel ni Serigne jóg ñu conduire ko Serigne Diop. waaw ancien juge constitutionnel. ancien kii médiateur Serigne Diop est-ce qu'il mais mel noonu mën nañ leen a. bëggatina dugg ci vie publique mais Sénégal defal na ko lu ne. moom amel na njukkal boobu Sénégal. fii Sénégal war a wax sax. waaw professeur Serigne Diop. voilà fii Sénégal il faut nga dalal ko d'ailleurs. Ah? il faut nga dalal ko man dama ko topp ba sonn. <laughs> waaw sunu papa jooju ñoo ngi koy ah? nuyu. topp topp naa ko ba sonn. mais mais xam nga xam mel ni moom te bari nañ ñu mel ni moom ci réew mi ñoo xamante dañu noppi tey te fii Sénégal toll ñoom waruñu noppi dañu war a jóg dox ci jàmm dox ba mbir yi sedd mais dox boobu mooy téye loxo Macky Sall tey ne ko 2024 nous sommes 18 millions de Sénégalais mais président Macky Sall ñi ko wër di ko gëmloo ne ko c'est yow la ou mais ñoo ñoo koy rey parce que ñi ko daq yor réew mi suñu borom benn instant tànn na ko def ko président de la république noonu la amee ñu bari ñoo xamante ni ñoo ko ko dàq yor fuuf ndax xëy na ñoo ko gën a nekk ndaw ñoo ko ëpp énergie il est usé il est fatigué.